mbokki asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu ñëpp ñu ngi ziyaara ñëpp ñu ngi ndokkeel ñëpp yàlla na ñëpp am jàmm ñaanal sunu xalif généraux yi yàlla wéral leen guddal seen fan bàyyi leen fi ñu àgg fi lool te wér ñaanal njiitu réew mi ñaanal boroom kër gi ñaanal kilifa yi réew mi kilifa yi aada yi kilifay yi diine yi kilifa aada yi yàlla na ñëpp am jàmm biir réew meeg bitim réew mbokk yi jotaay baa moom sallallahu alayhi wa sunu cofeel ci moom yàlla na ko yàlla gën a dolli waxoon naa la nag nii la lislaam moom du ay xalaat ay texte la te ma wax la ni la lislaam bi ñu ne ci fulla la mës si dox moom lislaam waaye sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daan na wax sahaaba yi daan toog ak ñoom daan leen wax ni man duma ma foo te fo newul ci man te ku ma bëgg doo foo waaw laa dadda min nii wala ana min dadi la Sidina Muhammad daan wax moom la borom daaliye borom nay lu amaani waxoon ni yow day doomu aadama boo nekkoon di ko am xel di nga xam ni roto ci àddina ngir mbóorontu mooy mbóorontu mooy fo caaxaan waaw di sëy xam ne yow sa sëy caaxaan nga nekkee euh, nekk yor alalu jirim yi di ko lekk xam ne yow ci caaxaan nga nekkee man ngoo xalaat la ngay dundee dara lewu ci nga nekkee noonu moo tax Sidina Muhammad daan wax ni du ma fo te fo newul ci man dégg nga fa newul ci man mara borom na lu amaan yi wax ni yow nit boo nekkoon di ko am xel di nga xam ne ñëwoo fi ngir ngir mbërontu waaw law kaana zal lubbin la ay xana annahu maa kaana unshia batilan aw an mooy yàlla sosee fu ci meen maa kaana unshia batilan aw an dadi waaw moro yàlla wax ni ndax da ngeen a njort ni man yàlla dama am jot nii rek toog nii rek bind leen nii bàyyi leen noonu déedéet dama leen a bind pour ngeen jaamu afa xasibtum annama xalaqnaakum abathan wa annakum ilayna la turjauna alquran la yàlla ne sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxal sa gaañi ni ndax dañu njort ni man yàlla dama leen di bind pour foo nañu bàyyi xel ni daañu del siwaat ci man olo fay wax nag ni sàcc bu dul raw jarul yàqi nelaw waaw jarul yàqi nelaw jotaay baa ngoog yaa ngi tëdd ak sa soxna xam ngeen di tas ngeen ñetti yoon ngeen continuer sëy waaw baax na sallallahu alayhi wa sallam benn jigéen woo na ma ne ma oustaz sama jëkkër fase na ma ñeenti yoon man ñeent te ñu ngi continuer ma ne ko léegi xoolal yaag sa jëkkër ak yàlla koo ci gën a bëgg mu ne ma yàlla ma ko xalaat bi lan la mu ne ma par génn naa ci ma ne ko génn ci ah bala moo laa takkaat faaw nga am beneen jëkkër ba noppi jotaay baa ngoog Abakar wax na Omar wax na Ousmane wax na Alioune wax na Abu wax na Sayyidina Muhammad wax na Jibril alayhi salaatu wa salaam daal dina cëpp ne ko asalaamu aleyka ya rasulallahi yàllaa ngi lay nuyu mbaa yëg nga ni daan dégg rasulullahi Jibril ni ko man tamit bëgg naa ñett ya rasulallahi njool ma ne ko ban ak ban la mu ne ko mooy jotal risala waaw ni ma demal nga ni rasulullahi nangam ak nangam ak nangam tabligu risalati bëgg naa bëgg naa ko man jibril njool màkke ne ko ak ban mu ne ko ak matal kóllëre ku man dama bëgg ku matal kuy matal kóllëre man jibril malaayika mooy wax loolu dama bëgg kuy matal kóllëre te mbokk yi réew mii ñu ne bari na ci ñoo xam ne fecc kóllëre la ñu nekkee góor gi day dund jël alalam dénk ko xaritam ne ko kër gi maa ko moom sawaay nañu ànd nga seede ci notaire signé naa teewee nga ko kër gi maako moom te kooka waxul doomam mbaa waxul jabaram ne ko diw ma moom kër gi sa xarita ko xam mbaa sa frère moo ko xam kooka génn àddina nga lànk ne noppi bañ koo tudd loolu ñàkk matal kóllëre la am na kóllëre goo fasanteeg yàlla mataloo ko am na kóllëre goo fasanteeg say soxnaak say doom mataloo ko boo fasanteeg réew mi kóllëre ga mataloo ko jibril ni ko ñaareel bi ma gën a bëgg man jibril alayhi salaatu wasalaam mooy matal kóllëre ñaar yi ma gën a bëgg man jibril waaw man jibril yow mi koy ñaanal nga ne alayhi salatu wasalaam waaw mooy matal kóllëre sayyidina Muhammad ne ko ak ban jibril mu ni ko ak bëgg miskiin ak ku bëgg dama bëgg miskiin ku ñàkk dama ko sopp te sopp naa kuy dimbali miskiin yi borom alal yi war a génne azaka am na ñu ngeen ko war a jox yàlla ñi mu wax ni ñoom ngeen war a jox azaka miskiin ca la bokk na ñuy dimbali miskiin yi mooy ñi ñàkk jébiri ni Sidina Muhammad bokk na ci ñett yi ma gën a bëgg mooy miskiin dem ci yàlla dil siwaat ne ko asalaamaaleykum ya rasulallah yàllaa ngi lay nuyu yàlla it nee na bëgg na ñett nabi ne ko man ak man ak man la jibiri ne ko yii ma lay bëgg a wax la